mbay basa mbay ñor xom mu nanga mbay mépp sànk ci àllum nee na bon bu ko def asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa yi ñu ngi leen di nuyu te leen ziar bu baax baax seen mbokk la xaadim bàmbaloo borom cabinet médical boo ko defee ci vidéo yi nga xam ne baaxoon nañ la ko defal baaxoo nañ leen ko defal rek tey wàll gi ñuy jëm mooy ci wàllu impuissance sexuelle muy néew kattan ci wàllu sëy mu doon loo xamante ne bii ñu baree bari ñu ñuy seet si ñu ëpp ci ñuy seet si rek moom la ñuy jàmbat ñu jàmbat hémorroïde te day bàyyi ko ci hémorroïde xam nga impuissance sexuelle li ko mën a waral daa bari mën ngaa yor hémorroïde interne wala externe bu nekki biir wala wuy feeñ sa kattan wàññeeku waaye mën ngaa yor ndoxum siti bu baree baree bari sa kattan wàññeeku waaye mën ngaa doon koo xamante ne dangaa bari looy jaxasoo ba sa kattan wàññeeku mën ngaa doon koo xamante ne bi itam ah, dangaa yor yeneen feebar yi lu mel ne jabet wala lu mel ne insuffisance euh, euh, insuffisance rénale wala sax nga doon koo xamante ni bii da ngay faral di jëfandikoo sa loxo danga daan jëfandikoo sa loxo ci sa wàllu euh, maanaam sakara ba tax sa kattan wàññeeku bokkutul na ki nga xamante ne moom kattanam dafa jeex nga xam ne amatul amatul kattan yooyu yëpp itam nag maanaam ci ci wàññiku gi lay tàmbalee di wàññiku dànk ndànk nga bañ koo faj muy wàññiku ndànk dànk ba nu mu jeexee. bu fekkee judduwaale woo ko bu fekkee da ko judduwaale tam loolu loolu leneen la waaye képp koo xamante ni daal yëg na ne kàttanam dafa wàññeeku ñu koy digal muy jëfandikoo reenu keng reenu keng ak sungufu daqaar reenu keng bu amee ñeenti reen sungufu daqaar mu am ci kuddu gu mag mu boole yooyu yëpp def ko ci ñeenti litre ndox mu teg ko ci ab taal fu mu baxee rek na ko teggi teg ci suuf ba mu sedd bu seddee mu def ci tuuti xorom def ci tuuti xorom léegi nag di ci naan kaas bu mag saa bu xëyee bu ndékkee ba noppi kaas bu mag saa bu añee ba noppi kaas bu mag saa bu reeree ba noppi loolu la koy def lu mat une semaine mu xool ba xam li ci tege mooy dañ leen di eh, wana wanaat suñ garab gi nga xamante ni moom lañ tuddee daj dëpp yaakaar naa suñ vidéo yëpp mu ngi ci ndax dafa doon garab goo xamante ni bii li nit ñi di jàmbat moom lay faj muy néew kattan ci wàllu sëy képp koo xam ne dangaa néew kattan ci wàllu sëy nga xam ne yow maanaam dangaa am problème maanaam daal Euh, problème boobu da koo am maam essayel garab gi insha boo ko jëfandikoo da nga ci am tawféex bu baax a baax a baax baax li nga doon jàmbat dina taxali ko yow ba faaw waaw garab gi moo nekk nii képp koo ne soxla na ci mën nañoo woo ci suñu numéro yi waaw ngi jégalu bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bay basa mbay ñor xom mu nangani cas mbay mépp sànk ci àllum nee bon bu ko def